éclaircissement parce que c'est très important aussi. Mia nooyu tuuti tëjal sa micro nga nooyu tuuti s'il te plaît. Nous ñi nekk euh, Sénégal Je wax ma la jeune bi jeune yaa ngi fees ci bi parce que boobu dama doon encouragé mais il y avait personne je mentais Il y avait personne Il y avait personne Wallah, il y avait personne pépp doo ko gis nit ñaa ngi doxi seen soxla nice nice nice man je vous dis la vérité parce que je vais parler. léegi soxna si nan leen bàyyi nag comme que léegi bëgguñoo génn xeexal seen réew rayante ngir jur suñ doomu njaam leen nag ñoom ñooy nekk Sénégal ñoom ñoo seen bopp foofu. dafa am lu ko nekk ndax yow léegi bu làmb ji wootee nga génn fees dell ba stade wootee nga génn fees dell dagg sa biir di yuufu rek ay yor ay photo Ousmane Sonko Sonko woo Sonko namu naa la Sonko woo waxi sareet yooyu noonu ma su lenn ma suba lenn ma suba gën a métti suba boo leen boo leen suba suba xaw ma suba xaw suba ñooy fees làmb ya nañ dimbali ak Sonko na mu naa la suba ñoom ñooy fees dañ leen bàyyi foofu ñu dee jeex na maa ngi doon fër bët sax di nelaw yaa yaa may dégg dimanche bu dimanche fii nii stade yi da nga leen gisaat stade yi fees dend fii ñu yuux seen wax xaw ma nu mu def mais xolam neexul seen xol neexul. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo boobu ñi nga xamante ni dañu bokkoon ci parti bi ñu disut muy Pastef di parti Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni manifestation yi ñu ngi doon ñi ñoo doon insister jeunes yi ñu nekk di taal dëkk bi di nekk ci bedd bi di insister jëm ci manipulation ay fen tey ñoom ñoo réunir ci seen beneen live ku ci nekk di weer sa bopp di wax sa bopp dégg ngeen ndaw soosu nee na ba mu nekkee ci live di naan génn leen Sénégal ñun ñi ngi génn Sénégal a ngi tàkk boobu kenn génnu kenn nekku fa nit ñi ngi dox seen soxla amul embouteillage amul dara kon donc ce vous montre que ñi bokk ak Ousmane Sonko manipulation ak fen lañ fi nekkee woon gisoon nañu ku mel ni Kay Fof ku mel ni Ousseynou Seck ku mel ni Dof Sàcc boobu Tunkara nekk fële ca États-Unis fen dong la ñu nekkoon ci réseaux yi ndaxte xeex su jotee duñu teew mais dof yi nekkoon Sénégal ñu doon xeex kon mën na ko déggal seen bopp donc yeewu su jotul ci ñi nga xamante ne ñoo toppoon ci ginnaaw Ousmane Sonko ma xam ne du ngeen mas a yeewu illaa yow mi dina en tout cas ñoom ñoo fi nekk doon weerante seen bopp